ba mu yàgg lool moo xam ne dafa tëju wala mu ëmm ci wàllu wërsëg wala lu mu yaakaar muy tas wala daal mu bëgg dajale ab som ci wàllu wërsëg nga def lii bu ko defee rek yàlla dana ubbi buntu wërsëgam bu soob yàlla incha allah li secret bi nag leer na yaara saaxu ngay bind mille fois da bindu man yattaxillaaha yaj'al lahu maxrajan wa yarsuqhu min haysu laa yahtasib وما يدعوك عن الله فهو عصبه إن الله بارك الأمر وقد جعل لكل شيء خدرا فليم نيغا غيسا ني ديفا كو سي كيدو نون كاي توب بام جيخ دا غاي بين دي يا رزاق 1000 تك يوم يتخيل 11 يا رزاق 1000 وما يتخيل 22 يا رزاق 1000 وما يتخيل 33 يا رزاق 1000 وما يتخيل 44 يا رزاق 1000 وما يتخيل 55 يا رزاق 1000 وما يتخيل 66 يا رزاق 1000 وما يتخيل 77 بو بري nga boole ko juróom-ñaari parfum yi neex nga sangoo ko juróom-ñaari fan su la neexee tamit nga bañ koo bind te di ko wér nii saxal ko juróom-ñaari fan nga xool sa wërsëg dana ubbeeku lool sañ nga ko wér sañ nga ko bind sangoo ko jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulah.